asalaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan Khass TV <laughs> tey moom lu bees tàkk barki rasulillahi non lii nag mooy sëñ bi pare na wàcc terrain bi campagne campagne bi jël député yi jox Sonko ñëw toog at biiram jàpp ñaambaram allo oh, loo loo loo loo <laughs> loo yow maa ngi nuyoo man xam nga waxuma euh, ginnaaw sant yàlla di julli ci yonent yàlla Muhammad di di di ñaan réew mi yàlla def ci jàmm yàlla dolli sutura jaw jaw xam nga yow man la boo ngay ñëw fekk ni sol kabam xamoo lu sabab kab ba nga bëgg maa yóbbu foo xam ni waxuma la ko te jaw maa ngi nii maa ngi nii toog laaj ma damay nuyu sama benn xarit mu jógee ba Paris boo xoolee bokk ci soppe xaas ñu koy wax Jean moo jógee ba pare indil ma lii boole ci ay yére boole ci leneen loolu laa ko delloo njukkal ndax rëy gi mu rëy ci mon ci moom laa bëgg mu xam ne rëy na ci man ba ma sol ko sant ko ci gërëm ko ci moom Jean vraiment loolu waral ma sol cap bi nuyu naa la waaw di jox sa wàccuwaay mais cap bi fi mu ko indee baax Sonko si wàcc ci terrain campagne cap lay may gars yi <laughs> moo tax la ma jox mais sëñ bi ah ma ñëw damay ubbee directement ci combat bi. démb dama lancé benn vidéo bu ndaw rek gars yi mu jur benn polémique tey dama bëgg nga tojal ma ci komba bi Modou Lo Siteu combat bi dëgg yàlla dafa lëndëm ci bëtu te dégg naa ñu naan Modou Lo galaaj du ko jàpp sëñ bi est nit bu galaaj mënul jàpp am na. teew xam nga lan mooy dëgg dëgg mystique xam nga xam nga jaw hmm. galaaj ku mu munul jàpp amul ci kaw dañoo wax ni yonent yàlla Muhammad bi ñu koy liggéey dañoo ut deretu jigéen mm. bu gis ngànt mm. ndax dafa sell pour man koo jàpp no exemple non maanaam dama lay wax ci ci ci ci lu munul ku ñu munul liggéey amul ci kaw suuf jaw nit dafa am lu mu composé am lu mu moom dégg wax bi mm. am loo xam ne moo ëpp doole parti nit ki moo waral bu nit ki tëddee di nelaw nekkatul jaw bu nit ki tëddee di nelaw nekkatul moment boobu anamu fàtte na ay boroom kon koy nekkatul te pourtant ci biir nelaw yi jaw jaw ci biir nelaw yi gént day ñëw léegi gént boobu ñëw jaw kon fu gént bi jóge ba mu xëy war a mën a yëg ni géntoon naa lii kon moom nit li ko composé dafa bari gis nga dama lay jox benn exemple bu ndaw pour wax la xam-xam ak ci baatin xam-xam ci baatin dafa nekk ñaari mbir yu yu yuy yu yu woroo bokk fenn daje àndaat fenn tàkkali ko xam-xam ak baatin parce que baatin am na foo xam ne bu fa àggee dootu la may nga dem xam-xam am na foo xam ne bu fa àggee mën na la may nga jàll waaye loo fay fekk nga dul xam te bee du la lor waaye bii danga doon xam loo fay fekk mooy nit ki nga xam ne des fois yaa ngi koy liggéey nga dóor dalul nga dóoraat dalul nga dóor mu tourné waat ci yow yóbbu la te bu dee baatin daf la wax eh, stop egsi nga ci fa danger bi day clignoter moo waral mag ñi doon wax naan baro bi wala kii nii bu ñu bëggee ànd bañ tël benn doomu limon yaa muy déglu baax jaw léegi doomu limon bi boo bindee tur ki nga bañ a tàkkalikool ci suuf yow nga def tur sa kaw nga jël juróom-ñeenti puso nga jam bii mu jàll nga jam bii mu jàll nga jam juróom-ñeenti yëpp ñu ni nga def ko ci sa rondal kooku du ngeen tàkkalikoo ila yow mi diin waa léegi lan moo la téye kon puso ya la wala limon ba wala lan la foofu moo mat a taxaw xool après naa la ko tojal exemple ñu ne neeferey mbaam xuux waa lan moo tax ñu ne boo ko suuroo seytaane bàyyi la parce que mbaam du jom mag ñi bu ñu daan dem ci àll ragal fa wala lenn dañ daan war mbaam mbaam da ngay gis bu demee ba fenn taxaw nga dóor dóor mu def ni nopp yi boobu jëndee ngi romb ma wax la ni mbaam moo nekk seul mala bi nga xam ni boo demee ca bëtt càmmoñ ba bisu jeudi nga daal di laal lii ca rangooñ ba parce que foo fekk mbaam laajteel ñu ko am bisu jeudi day génne rangooñ rek boo ko laalee ca laas ba laal ko ci sa bët boobu bu jinne riire woon Casamance nga xam ne jinne ji jug na ñu nodduñu sànq du ñu bàyyi léegi lan moo waral loolu kon am na ci loo xam ne ku koy xeeb mooy li olof naan ku xeeb sa taal mu lakk sa kon dafa am loo xam ni moom nit ki moom la composé léegi même neefere mbaam boobu lan moo tax ñu la liggéey lu mu bon bon boo ko utiliser mu bàyyi ba mu des liggéey bi ñu def ci biir bàmmeel parce que bi ñu def ci biir bàmmeel dañoo jël nit boole kook la mu moom moo tax ñu man koo jekk mooy la ma lay nettali ba chaque jour ma ni la sémmiñ bi ñu jëlee weñ indi ko teg ko ci garab garab dafa ree ñu ni ko looy ree mu ne parce que damaa xam ni weñ gi mënulu ma dara ñu dem dagg lu bokk ci garab indi ko mu jooy looy jooy mu ne damaa xam ne nag mënal na ma dara ndax jël nañ lu bokk ci man def ko ci kon moo yey jooy léegi nag kon nit ki boo jëlee lu bokk ci moom composé ko looloo waral tey par exemple saabu bu nit ki sangoo néew moo tax gis nga nit yaram bi lay siñaale ba ci mbëru làmb ak kiy liggéey ak kuy def lii def lii bu dee dangay ngay sëy ak nit sa xol jublootu ko boo ko xoolee jéppi xol ba di tàng fit ba di dóor mais y a chose war nga war a xëy dem liggéey ci place ba jëw nga ni bërit attanatuloo yaram ba bopp ba di dóor y a quelque chose parce que yow kat sa digganteeg fee nga jëm bët moo war a xool nopp moo war a dégg waaye dëddale nañ la ak yow des nga gis ne ko am nopp bi day salaire wala mu mel ni jàmm muy def nii mag ñi di borom bopp la déedéet ku ñu soof en général bu jàppee noonu lay def si buñ la sëfee bu jàppee en général nopp ba dafay riir parce que sëf bañ la sëf bu dee xabtal la lu jëm ci nit foog mu dellu si xel mi fii pour mën laa pousser mu dem ci jaw léegi li waral bu dee noob tey fit ba di def tëf tëf tëf tëf parce que xol bala la da ngay làmb arbitre pour muy arrière parce que fit ba toogul mu daw mu daw dégg wax bi léegi nag looloo waral noob garaaw léegi boo gisee nit nit ni ni yàgg nag benn place ñu ne dañ ko fas parce que fas ak jat sidit lay jàpp malatey am na ci yoo xam da nga leen di jat bañ taxaw benn place nga dem jàpp leen. aha parce que la nga ko jat du jëm mala bi mais sidid yee nga jat. waa léegi nag sidid yooyu nekk ci nit looloo war a reen ba ca garab ga boo ko jëlee nit utiliser ko mu mën a jàpp sidid ya parce que garab dafa am reen parce que day dund. léegi reenu garab ba ak siditu nit ki dañoo composé looloo waral am ci benn ci reen boo ko takkee romb jaan mu sab di yuuxu léegi lan moo sabloo jaan ba muy yuuxu. <laughs> maanaam nit mooy li ma la wax kon garab tey am ci yoo xam ne boo ko daggee mu mu jooy boo ko daggee mu jooy waa léegi pour pourtant rangoñ bi nit ki di génne fi muy génne ci moom ak bi génne ci garab gi ko xam fan la ciy joon amul léegi li waral tey jaww biiram bi fe biiram bi metti ñu ne ko demal ut xas sàngam nga xooj ko naan léegi xas baa faj jaw wala garab gaa faj bu dee reen ba reen baa faj jaw wala garab gaa faj jaw parce que kon ma bàyyi baro doon axaa ah, ah. waaw waaw reen ba fajul jaw baro garab ga samp garab ga samp turu yàlla la taxawee moo tax mu dund bis bu ma turu yàlla jógee rek garab ga faatu garab goo gis mu taxaw ci kaw suuf tur yàlla la taxawee tur yàlla moo taxawal garab ci kaw suuf moo tax am na yenn ci garab yoo xam ne doo leen roose est-ce que garab gu danger ngi nii te pourtant noor ba noor léegi lay jug mooy garabu kàdd lu ko gën a bon kàdd lu ko gën a bon amul doo gis mbang ñi naan boo daanoo ci kàdd doo wér lu tax parce que kàdd daa waat mooy garab gi gën a mën a téye day met xam nga bu ñu nit du téye bañ la nga mel ni kàdd xas nañ la parce que kàdd loo ko dénk mu téyel la ko lu mu mën a doon nag lu delloo dara waaye waxtoom la xaar te kàdd ci ki mu gën a bon mooy ki ñëw rek def sa liggéey te ci moom nuyu ko bien lu ñor mooy wadd de doo ko bàcc de sax te noor ba noor mu meññ ah xalaatoo ko te noor ba noor mu meññ lu tax <laughs> mooy fi ma lay wax kon jaw yaa waaw ma wàcc <laughs> <laughs> gars yi dañ lay mere de ah ma wàcc jeex na kon jaw ah. mag ñu ni la ah. boo bëggee sutura indi bu ñu def tey ceeb morso ba ñu koy wëralee pare sóor biir ba ñu ne la morso boobu mën na lu de ñu leen inde boobu it man na lu ne waa léegi morsa ba kon wala inde ba la lan moo ko sabab déedéet mooy gis nga togg ba mu togg mu ñor mën a dem ci biir biiri nit yàlla suturaal biir ba moo tax mu def si rubi fële léegi ki bindee Big Feutre ak ki bindee daa loolu mooy différent bi parce que daa bi mooy cin la ca biir euh, matt ma togg ko fa bokk ak ki ko teg ci gaz parce que gis nga moo tax ñu naan la liggéey boo liggéey rek di nga ko fayeeku léegi nag moo tax ku ne yàgg naan liggéey du ma jàpp yaa ngi ci erreur amul ku liggéey mënul jàpp ci kaw suuf des de neefere mbaam xuux tey seytaane ñimewul liggéey mu toj liggéey bu ñuul mu toj lu tax ñu ne la boo bëggee am doom doom bu gaaw fu mbaam xalangu tibbal ci suuf soosu boo ko defee buy am doom du ko yëg parce que mbaam mën na fi mu toog am doom léegi du yëg ne am na doom am ñu ciy defar fas di ko takk ci biiru mbaam jaarale ko ci ñëw jox la mooy fas yi ñuy joxe ni la boo ko takkee booy am doom doo ko yëg pourtant fas yi foog waxuñu ci dara de ñooy baax naan bisimilah rahmaani rahim di fas ay du dañ koy jë dañ koy jaarale fii jaarale ko fii natt ko ci biir bi rek mu sës ñu pare léegi nag bu dee classe kaatim gi dañuy baaxal foog ni réyal ko rek def ay fukki fas ak nang du fas ya wëñ bu ñuul wëñ bu xenk wëñ bu ñuul wëñ bu weex wëñ bu xonk jarul fas dafa am tooke moo waral boo ko takkee ci taab wala loxo bi metti muy xëccante parce que bu ci nekk su day maas bu ci nekk ak la muy xëcc gaa yi koy réel nag daan bisimilah rahmaan di fas <laughs> déedéet ñetti wëñ yooyu rek tooke boppam la mais jaw boo ko joxee ñetti wéy ñu noonu fasoo ko mu ni ah waaw waaw waaw déedéet da foog nga fas ko mu ni laay sëñ bi fas na ko fekk boobu du du yëf ya léegi perkaal ñëw taxaw ni man dama weex léegi lan moo tax mu mën a jàpp ko tilim mën a jàpp ko weex moom perkaal tey exemple sunu mbokk tiijaan yi bu ñuy wasifu nga gis ñu lal perkaal bu weex di ci woo yeneen bi te da leen di wuyu nga gis tey keneen jël lu ñuul kuk lu mel ni laaj xeeñal welkaar bi moom mu xëeñ xunn daal ni bis tuf tuf tuf xëcc ni kaj jaw jékki-jékki biir bi ne biir ba jam ñu ni ngelaw la fekk bien sûr da koy jàppee ngelaw parce que fas bi nga fas di jat turu lan nga woo parce que yonent yàlla Muhammad pourtant saalaali Muhammad bi ñuy wax kon ñaata Muhammad la mooy li Serigne Cheikh naan kee day toog ne allah yàlla wuyu ko nee na séeréer bi naan ca naan ba mandi ni roog seen yàlla wuyu ko te nee na yàlla bi wuyu kii fii moo wuyu kee fee xanaa kon yàlla moo mat parce que daa yàkkamtiwul dara léegi nag moo tax yàlla jox jaw xel ni ko boo toogee sa bopp metti nga naan garab sottiwul nga tëdd gént jaw yaa quelque chose jógal ci sa bopp moo tax gént bi nit ñi sàgganee moo danger moment bi dafa am ay signes yoo xam ni nu ko gën a dangereux ci gént baa bokkul benn chaque fois ma wax ko yàpp bu tooy xëpp fu ko nit géntee xamal yaa ngi ci erreur policier guddi moo xam muy sapeur moo xam muy gendarme moo xam muy militaire foo ko géntee yaa ngi en danger foo toog di ñàkk foo ko gé toog di tout le temps tout temps di ñàkk sedd nga ñàkk tàngoor nga ñàkk dañ laa liggéey fit buy faral di dóor di dóor di dóor di dóor te mënatul arrêté dañ laa liggéey tànk yoo xam ne tey par exemple fu timis jotee fa lay commencé di metti di ruux rek ngelaw seytaane nga ca tànk yooyu ngelaw seytaane boobu mooy indi paralysé dégg wax bi biir boo xam ne yow jigéen bi bu fekkee booy gis ngant di bëgg a dee rab bu bon mu ngi toog ci sa naaq yow jigéen bi boo toogee ka nga bëggoon jékki-jékki dégg ko rek sa fit ni tëf jugal sa liggéey lay signalé est que da nga wax bi nga toog nga gént tey ñu lay dàqi di la dàqi ba nga daanu allahu akbar mm. ay waa jugal ci sa bopp la la daan la la daan pour nga jugaat dana problème rawatina ci lëndëm lañ doon la dàqi jaw mm. nga tëdd gént golo guddi dawal boo xëyee yàgg say mbokk jaan daal di lay laxasu waxuma nag jaan màtt la jaan laxasu la ba wër la mooy liggéey jàpp na la ba fees dell ci sa biir yaram bokkut ak jaan bi ñëw màtt la kooku rab la muus mu ñuul kukk foo ko géntee guddi maara sànni nañ la loo xam ne boo jugul ci sa bopp di dinga dem ñibbi mooy la Serigne Cheikh doon wax naan dee yi léegi normalatul ñenn bu njëkk boo gisee dee bala nga ko gisaat yàlla xam waaye léegi dee yii nee na normalatul kon lan mooy problème bi jaw du def sama yaram lii sangoo te boo feebaree tëdd bërëb lu ñu la jox nga mën koo sang kon olof lim naan jugal daw ca ba ngay ami tànk nit da ngay jéem a xam dëgg dëgg dëgg man Souleymane jaw fan laa war a mën a teg sama tànk loolu c'est très important parce que àdduna ñaare fi ne kii gëmm di dox doxam du sori ki xool li dox doxam sori garab bii dafay laaj ndox suuxat bii ñu ne la soxlawul ndox mbopp pourtant ñax la ca àll waaye ñu ne la tàkk-tàkk ba amul boo taalee bu ne përë jeex na waaw nit ñi di yàqee wërsëg noonu nag am ci ñoo xam ne seen wërsëg nii lañ ko juutalee wallahi lu ñu téyee du dem am na ñoo yow des nga dem ci garab nga fekk ñu dugal téere ca butéel ba juutal juutal butéel ba wala nga gis ci digg kër ñu gas ko ba pare dugal turu boroom kër ga juutal ko wallaahi du taxawal dara ba pare li gën a bon puso la ñuy jël daal di bëtt mooy lu ñëw bu génn du am jàmm am na ñoo xam ne bu ñu yoroon 1000 francs billaay ni suba bu ñu xëyee ndekki ko dañ koy joxe ba pare nan woon moo daal xaadim sekk mi xamul sax luy mënu sa tey fukki dërëm kon dafa am maanaam léegi nag cat ñëw ni man wàllu si naa jaw ni ko fan ngay nekk ci man mu ni c'est mu ni man cat mën naa lii ci nit ku ñëpp soppoon ma fexe ba ñu mu soof ñëpp man cat man laa fexe ci lii nit commencé ne lii ba war koo defar ma ni du ak te du liggéey te du dara te maa ci gën a bon liggéey moom cat parce que lim ci gënee bon liggéey mooy looy dugg dala ciy jiitu bëri na ndaw yoo xam ne cat moo yàq seen àdduna te foog nañ ñu fi ne ñoom ñu ngi ci buntu àdduna foog nañ seen lépp baax na waaye bu ñu xoolee seen arrière war a xam ni kon cat yàq na leen ndax tey heure bii li ñu waroon a taxawoon baree baree bari ba maara day taali te day def sa bopp ni la lii ñëway dàq ba nga xëy nag ñu tëral la nga naan pourtant fa ba maa ngi doon dundee yaakaar de ñu bari loolu leen sonal parce que lay sa jariñ dëgg du ko bàyyi nga koy def parce que cat la am ñoo xam ne nag ba ñu juddoo la leen leen cat boobu jàpp am ñoo xam ne ci seen biiru ndey am ñoo xam ne ba ñuy jàng am ñoo xam ne bi ñu leen di muur ñoo xam ne bi ñuy takk jabar moo tax am na ci ñoo xam ne sax cat yoo xam ne mooy jiitu nit ci néegu sëy ba doom du fa am parce que tëj biiru nit yomb na mais en général mag ñi dañ daan wax naan gis nga jigéen buy dem di muuru sëy boo gisee bu demee bay dugg biir kër jëkkëram jaw ñu naan na jàpp ba pare dooru moo tax léegi comprendre tu léegi tubaab yi yàq nañu jaw nga jël nga gis mbattu ñu daal di koy takk ca bunt néeg ba est-ce seytaane bëggul mbattu leket lu garaaw la lu tax mag ñi buñ daan dem ci seeni cosaan leket lañ daan dëpp seen bopp di dem di gise tuur ba jaw boo nee jal jóob sàngomaar ana sàngomaar déet mais ana Sangomar laa la jëw ah Sangomar rab la yaa ko wax ah, oh, oh, oh. kaay ma la dara nag ci rab kaay dara nag ci gis nga moo gën a gaaw ci nga waxal ko lu nekkul ba mu ñëw ak mer léegi am àll boo xam ni am àll yoo xam ni la moom àll ba dañ naan ay moo tax nag bu ñu tuubee am na jinne yoo xam ne fa ñu boofoon loo defoon ci lu bon ñu jàpp ko waaye gis nga ba ñu demee bu tuub bëggatuñu ku leen jige waaw boo ñëwee ci garab di daaj mi am na am na dàll yoo xam ni yaa ngi ko gis ñu daaj ci garab wallaahi jaw yërëmal boroom dina uti bay bëgg a dee wóor na alxuraan day yow laan di lekk am na yoo xam boo ko dindee mu topp la parce que dafa am liggéeyam dafa am tooke boo ko lan moo tax mag ñi di la wax ni bu dee liggéey bu baax ak liggéey bu bon <laughs> nii nga koy tojee c'est simple nag bu dee bu bon ba sottil doomu taal doomu taal lan la woon garab bu doon dund dem ba jeex tàkk mënalu la dara. kese mu toj bu dee bee saw bëy bi ñu naan dafa bon sax dañ naan la boo ci tuur ndox mu dellu lan moo tax parce dafa am loo xam ni nii la def moo tax doo leen boole parce que ànduñu kon jaw ndaw dafay xam cosaanam jaw yàlla ñu yàlla musal ci xam ko xamul cosaanam xam nga nu melam gumba ba pare ñu takkaat say bët teg ca bis bu ne lay sa musiba ngay dem doxi te doo ko yëg mooy kii dem accidenté ñu ni faatu na mooy kii takk jabar boo xam ne waru koo takk mooy kii liggéey foo xam ne waru koo liggéey ku am na ci loo xam ne mag ñi dañ naa la yaa ngi wut loo xam ne nangam lii gënul ci yow boo ko duggee rek yaa ngi ci erreur kon dafay baax nit ñi daal di dellu seen xel kon loolu ci combat bi nga yaa ma dugal foo xam ni nga ci cadre liggéey moo tax ma waxee foofu amul ku liggéey mënul jàpp ñii dangay ngay tëj ci ñoom ñu dem ci ndox jàpp la ñii nga gis tey ñu dem ca jànj parce fa la jinne yu bon yàpp nekk rey fa nag bu ñuul kukk di fas jinne naan dret ba pare ñëw ne la jaw xaar ma dimbali la def yëfam moom it fi mu toog am na soo xam ni mun nañoo bañ a xam dara deret ba ñuy rey moo tax dañuy dem ba dañuy jàpp sax aay nañ fekk ñu parce que deret ba ñuy rey mooy tax jinne moytul ma kii saxoo njàpp loo ko sànni mu turne xanaa xamul leen rek mooy sunu problème ñàkk a bañ a mën a saxoo njàpp mais moo war gàllaaj bu gën ci gàllaaj yi daw loolu c'est très important moo tax boo demee ba tële ko chaque guddi dee ko def c'est très important kon combat Modou Lo Siteu loolu laa am lu ma la ciy wax. prochaine émission si combat boobu si combat. xam. Hmm. Siteu ñëw ngemb bu ñuul lay def. Hmm. moo doonee jiital lu ñuul. Hmm. ak lu jaune. loolu dinañ si ñëw léegi dama ñëw sëñ bi. waaw ah. te Macky Sall gi a ñëw dégg naa defuma dara nag. waaye yow de nag jaw yow moom xam nga yow jaw ñaar ñaar daal la jaaxal ci yow. Hmm, Sénégal. waaw non nag bii nag. Ah, bii nag. Sénégal soxla nañu nañ nañ gën a maanaam gis nga gis nga dëkk bi. jaw dafa am dafa am lu ma xew a frappé. ku la mësta ñaan di la ñaan te pourtant moo gën a nangoo liggéey waaye daa gisatul fa mu doon amee hmm, waaw maanaam nañ nañu nañu gën a yombalaat yenn yi rek loolu c'est très important gis nga tey réew day toll foo xam ni fa nga koy jëlee dana metti trop waaye la la cay dimbali bul xeeb xalaatu kenn gis nga jaw hmm. benn xalaat gis nga kiñ ni moo gën a mat ñëpp di xayru xalxulaay di ngën di mindeef da daan wax ba pare saxaaba yi ni ko sa wax la wala waxu yàlla bu dee waxu yàlla mu ni ñu ni jëfe bu dee mu ni sama wax ñu ni nañ ko toog xoolaat ko kon xalaat ñëpp a ko soxla Sénégal moment bii euh, Ousmane sax yaakaar naa ni kuy déglu la waaye lii ci ëpp importance moom président Diomaye lañ koy wax mooy nañ gën a xoolaat réew mi gën a xamit lan mooy exact problème mu réew mi parce que réew mi nag actuellement moom moment bi neexul xëj na nag ci liñ xam nga nag euh, président Macky nag gars xam nga Macky Sall waaye yow di jow jow de man man jow nag jow nag bu mu leen bett jow Anta Babacar Ngom jaw fii jaw fii jaw moom jaw moom euh, kawayoon nekk ñoombar tukki dina jaw moom day tukki rek <laughs> Macky nag kaay ma wax la euh, olof dafay wax ni nag man de su doon may nag yaakaar ma Macky Sall ñëw ci réew mi ah, ah. président maa ngi lay conseillé boo may déglu bul ñëw ah yaa ngi dajeeg ndaw si Maroc rek mu wax la lim lay wax déedéet yaa ngi dajeeg ndaw si Maroc mu wax la lim lay wax eh, nga dem kii nga gis fa mu mujj ah yàllaay dénkaane doole eh. président Macky da daan dugg ci avion di tukki ndaw si du ko jigee du ko gis tey mu ngi tukki ndoog nit yi ba nit di ko romb daan ko xanaa kii du Macky Sall kon nga war a xam ni hmm. yàlla rek a fi ne. yàlla nag ah des fois bu la bëggee suturaal na ngay suturaal sa bopp rek suturaal sa bopp mooy ah, nga xew a toog rek deuxièmement jaw réew mi réew mi eh, xam nga am na benn waay buñ ma mas laaj ni ma léegi yow lan mooy sa problème ak diw bugaat man ko mu ñu problème non wax waxuma kooku sax dafa am déedéet kooku non déedéet kooku sax dafa am sens déedéet yëg naa caw bi sax mais xam nga lu ma am sens ah. son yi bu CGB. waaw na sant son yi bu CGB bu baax. giiñal naa la ci yàlla. son yi bu bokk na ci ginnaaw yàlla. ñu tee ma tëj ko. déet exemple laa wax rek. léegi dafa am kenn kuy liggéey seen TV. te ba tey weesuwul na xam nga xaalis moom yaramam day tàng mën naa xëy dem de. waaw moom pour nga bàyyi loolu man moom. man moom man soo nee baal naa mën naa xëy rek taal oto ba caag wala xaaral ma jàdd fa. moo tax fu mu jullee na ñaan nag. parce que waxam yi daal rëy maa xàlla jaw kooku ni ma lan mooy sa problème ak Bougane sama xarit la nag ki ba wax loolu man ko Bougane amuñu problème ma ni ko dafa am ñaar rek ma gëm Bougane ak président Macky Sall la woon nga ni Macky baaxul baaxul baaxul ba Macky jóge fi Ousmane Sonko toog même pas juróom-ñaari weer nga ni baaxul waaw bu yàggee kan moo baax ñaareel bi Bougane dafa bëgg Sénégal la wax bu ibbi entreprise am muy seen TV ay sénégalais di fa liggéey mu ibbi woon jooni jooni ibbi lii ibbi lii yooyu yëpp buggaan defoon na ko jaw wala léegi loolu yëpp nga def ko man damay d'accord ni bu nguur ñëwee yéen la woon a bokkoon coalition yéen a bokkoon lépp sama amee sama xel mu rafet dinaa ko dem jox man buggaan suy def émission dama koy seetaan parce que doon li may du du du ma ni li muy wax lépp moo bon déedéet am maa ngi ko fii rek euh, Sénégal 7 émission bi mu mujjee def moo côté boobu waaye jaw ki ma rey Ahmed Khalifa Niass nee na moom buy voté nee na patriote yi lay voté non doo gis nga rek gis nga neexul ba neexul waaye gis nga jub jubal jubanti bii baax na ci mag ñi de moo tax Serigne Cheikh du nit mu ne mu ne ñaawal kanam dafa man rek fi nekk dafa mag mu xamadi moo tax moo tax almaxtum du nit léegi rek la pekka waaye nag Serigne Cheikh teg ceen yi waaja boo mu ëmbalee mindaan ma ah. nee na jabar ji ñëw ni ko yëg nga li ma yëg ah. mun ko lu xew mun ko yëg nga mindaan bi ci kër gi dafa ëmb mun ko loolu affaire am la ko nii yëg nga ni yaa ko ëmbal mun ko loolu sama affaire la mun ko yëg nga nii dinaa génn kër gi mun ko loolu sa affaire la waaye mu teg si nii ku ci nekk bu yemoon ci affaire am ah. àdduna dem kon wasalaamaaleykum wa rahmatullah